ndax xam nga jiili yow laaj ma jiili ma wax la jiili kan moo di jiili moo doon imaam ja kay doomi daam ja ka doon ja moom sayxu jiili al istixaama jikkoom la ndaama bindam la daama di di jiili tawxiid ju koojul sunu su mejjul ak xol bu gàkkul kenn du ci jiili du takk ay xaaw du timi petaaw du ñaan ci luy naaw sànni ko jiili du takki téere du xoob du cawri du ñaan lu bayre moom sayxu jiili tawxiid ju sell sax ca ne ba jàll jàll mi taala wa barakaatuhu bokki julit yi bokki taalibe yi bokk yi jàkkaarloo ñun duñu seetaan ca duñu déglu bu ngeen jàkkaarloo ak jataay bii jàkkaarloo ak yu sell yi ñu leen wan da ngeen xam bis dëgg malaat na bis boo xamante ni bii ku masaa jaaxle wala nga am ci sa bopp tiitaange kala daan ñaanal kooke nag lañu fas ci ak ñaan kooku mooy kan mooy sëriñ Abdul Xaadir Mbakke moom sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul mi nga xam ne bu doom masaa juddu su tëflee ci aw nappam aw tur kooku dana doon ku jëriñ lislaam jëriñ am réewam waaye bu fi nit masaa bàyyi ko bu la tiimee sun borom subhaanahu wa taala dana la yërëm kooke nag bisam moo dëgmal moo tax ñu jëlee ndigal ci sëriñ Tuubaa Seex Sidiyal Muxtaar xalifa général kullu murit ñu ñaan sun borom yàggal ko fi lool te dolli ko ak wér ñëw ci doomam yu yii nga xam ne benn tool rek la leen seen wayjur bàyyee muy toolab sunnatu rasul tool boobee nag ci lañ ba seen ci lañ ci lañ ruur seen i di ca bay ca fa su ñëw dellu ginnaaw moo tax ndigal ñëw ci sëriñ Seex moom sëriñ Abdul Xaadir mu wàcce ko ci rakkam di jëwriñam di sëriñ Moustapha Mbacke mii ñu jàkkaar lool ñu fas yéenee woote bis bu tedd boobu nga xam ne moo waxoon fii daaw ne bagaan ku ko am taatanal boo ñëwee sëriñ Abdul Xaadir dana la ko duyel bis boobee ñu doon duyee bagaan yi nag moo dëgg malaat war a doon le 17 octobre di amee fii ci Touba ci këram gii nga xam ne fi la daan aajo yi moo tax ñu fas yéene yëkkati kàddu gi jox ko sëriñ Modou bu Boussa imam mu ubbil sëriñ Moustapha. ci tuuru sëriñ Cheikh Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Khadir Mbacke ak ci tuuru magam kilifaam sëriñ Sidi Muxtaar Mbacke xalifa général Mouride yàlla na ko leen te may leen wér. Mhm. ci jawrinu sëriñ Moustapha Mbacke toog wuutu leen fii ci jataay bi. war a ubbi waxtaan wi wax mbooloo mi lanu daa la daa wax ngir ñu jariñoo ko ta ba ba ñu fi dellu si waat fi ci jàmm salaam ñu di leen nuyoo fii nag ci kër gu sell gi kër barab bu tedd bi barab bu màgg bi di barabu jaamukaay yàlla Cheikh Abdoul Khadir Mbacké imaamul aimati ñu war cee wax li nga xam ne mooy li tax jataay bee am ak ki tax jataay bee am muy loo xam ne lii nag kàddu googu dañ koy bàyyi ak sëriñ Moustapha Abdoul Khadir moom mi wuutu sëriñ Cheikh Mbacke ci lii nga xam ne mooy jataay yi ak yi ni mel mu jotal kàddoom buñ ci noppee ñu jox kilifa yi noonu ñu ko waxee ci jëwru nag sëriñ Sidi mi nga xam ne moo yor seen kàddu di leen taxawu ci liggéey bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yéen bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi nag. sering Sidi Muxtaar mi nga xam mom la sëñ Cheikh laaj ndigal soog leen jottali kaddu yi demal na fa bopam ginnaaw buñ julle ba laaj ko ndigal ñi diko ñaanal momit yalla euh, deeral ko jappale ko ci liggey sëriñ Touba bi nga xam mom la ci moom lay liggey mom moom mii nag moo ci jox ndigal sëriñ Cheikh ngir ñu liggey yu Cheikh Abdoul Khadir mbake bi nga xam mom lañ baxo def ndax dafa ba at mu jot day dem ba laaj ko ci ndigal bam ne ko man ngeen ko wëyel mu soog a ñëw soog woote ci turu suñ seex moomu nag nga xam ne moom laay jàngal wax jii nga xam ne moom laay wax ci jataay bi maa ngi leen di nuyu ak ciw turam di leen jot li kàddu yii ak woote bii ci ndigalam ak ci baatam di leen xamal ne mboolem fu ab jullit ne ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel di leen woo nag ci woote goo xam ne bayiwuñ kenn woote ba bëstal la goo xam ne ñëpp lañ woo ngir ngeen ànd ak ñun bokkaale ñun ngeen ko baaxoon daa def te mbóor nañ ñu ne noon ngeen koy defee ci màggal bis bi nga xam ne Cheikh Abdoul Khadir Mbacké ci la feeñoon ci àdduna ba sëriñ bi wax ca lam ca waxoon muy war a am nag ci ñaari fan wala ñett ci weeru tamxarit wii di ñëw dëppook fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tubaab wii nu ne ñu fas yéene nag jàngal eh, màggal ko nañ ko daa màggale te woote leen nag woo gi nag ba bëstal woote ba bëstal lañ ko def jafalaa na ma ko daa waxe <laughs> bu ko defee nag ba leen wax ci lu gàtt tuuti ci dundub Sëñ Abdou Khadre ngir ngeen fàttaliku ni mu meloon moom de li ma xam ci moom te yéen ñëpp ngeen xam ko ci moom mooy bëggoon sunna la ak li sunna làmboo lépp ak li sunna laaj lépp ba mujj doon sunni yu ku ah ku daa teggiinu ci teggiini sariha la te mosu koo génn li sariha bu bégee ak bu bu bu safaanu mbég ñëwee ci du genn teggee ni ku daa boole nit ñi waaye du len takalé ku da ku ma sa a ci jotaay lam lay sepp cir dana la ko jox ku wutoon waxtu la wo xamné lu lu lu boo newoon amiri gi da nga xamné waxtu wi bo ñewé ci mbar mi nang ko fekk gënaaw takkusaan yor yor da nga xamné bo fi ñewé gis ko ta ta ñi ñi amé ordonnance ak ñi ñak ak ñëpp dañ fi dajé ku ne mu déglu la fajal la sa itti ak ñi ñaanlu Euh, te it bëggutoon kenn ku ko wax ci nit euh, euh, dara benn ayib ndax li muy def ngir yàlla bëggut kenn ku ci soppi dara loolu moo doon jikkoom waaye loolu nag dama ci yéem sëñ Tuubaa ndax ñi mel nii ñëpp nga xam ne ku ci ne ñem defar mën nga leen a waxal jikko yu mel nii te ba te ñoom ñëpp bët bi ñuy xoole sëñ Tuubaa ñoo ci tolloo ñoo ñun ñi ni niñ koy yéeme ak bëtub taali bi ba nga xam ne moom moo moo gis sëriñ ba gën a mat ci àdduna bët bam koy xolé ñoom it bët boobee la ñu xool sëñ Tuubaa loolu ñoom moo dee ci ñoom ñëpp kon nak loolu mo doon jikkoom kiko defon ci ñom nak moy sëriñ bi mo leen melal nonu bañ yémo nonu euh bu ko défé nak ñi ngi e, wax ñi nga xamné am nañ responsabilité ci wara def dara ci magal gi muy wa ngor gi ak wa commune bi ku ci ne lay sa gar ci magal gi xam nga mm-hmm. ñi ngi la ci soñ naka nonu ñu ngi ko yégal président de la république di di ko ñu ngi koy yëgal bis bi di ko yëgal première ministre di ko yëgal di ko fàttali ñii nga xam ne it ci kër gi lañ bokk muy euh, Pape Diop ak Souleymane Ndéné ak Aline Badara Cissé di ko yëgal it nag mboolem kilifa yi aada yi nga xam ne am nañu cër ci réew mi fu ci waaye mën di yëngoo sétteewuñ la ñu ngi la koy yëgal te fas yéene noo ko daa defee nga defe ko ni boo ko defee nag ñiy woo bokk yëpp di woo tarixay suufi yëpp bay wuñ kenn ndax ku ne xam na mbokk gi dox seen digganteek ak sëñ Abdou di woo kuy mbokk rek ndax ku ne xamoon na mbokk ni ko sëñ Abdou Khadir tollal di woo ku yaakaar sañ Touba nag taalibi yëpp ndax moom wututoon frontière ci taalibi waaye taalibi it fay nañ ko ndax wutu liñ ko frontière ku sopp euh, di woo nag soppeem yi nga xam ne dañ koo bëgg am na ñoo xam ne mosuñoo ñëw Touba sax waaye dañ ko bëgg ñu ngi leen di fàttali ne bis boobu nga xam ne sëriñ bi ngeen bëgg ñëw na de eh, di soññ nag njàngum kaamil bi mboolem jàngkat yi alxuraan yi daara yëpp ñu ngi leen di soññ ñu ngi leen di soññ yi ne ci Touba yi ne Njaaréem ak Daaru Musti fu fi ne ci yoonu murid rek fu banqaas ne ci yoonu murid buy buy daara nee rek ñu ngi lay soññ boo ko defee nag eh, eh, cérémonie officielle bi ñu ngi leen di xamal ne ci guddi gi lay doon waaye bëgg nañu ren mu gën a teel bëgg nañ dal ñëpp ñëpp ñëpp neuf heures demi nit ñi mën a ñëw balaa dix heures wala gën jaay yeex dix heures ñu tàmbali ndax mu mën a jeex njëkk ay onze heures demi gën jaay yeex noonu lañ ko bëggee loolu daal lañ la waxoon ne nañ leen ko wax ginnaaw waxtu yi dafa xat nag la ci des ñi ci des dañ ko jottali ñi ngi ñaan nag képp ku ñëw nañ leen ko baaxoon daa wax képp ku ñëw na nga indaali sag bagaan te xam ne li ko sëñ Tuubaa defal boo ñëwee te taatan ci loolu yonent bi wax ne inna li rabbikum fi ayaami dahrikum la nafaxaat alaa fa taxaradoo la bis bii ci la kon ku ñëw te taatan te andaale positif boo ñëwee dana la ko duyal na ko bëggee kon nag yàlla na yàlla dimbali ñu ba kuy ñëw nga andaale bagaan yu yaatu yu mel ne yooyu alxuraan di wax wa jifaanin kan jiwaab eh, yi na la ko yàlla dimbali te bu ñëwee it eh, ci ci ci baaxub sëñ ak ak ci lim ko séddi yàlla yàlla yàlla nañ yàlla nañ la ko duyal. amiin ba ba ba taatan bu ànd ak pasif rek mën nga ko am wa kullu aamin wa antum bi xayrin wa salaamaaleykum. Mm. ci ndigalul Cheikh Sidil Mokhtar nag sëriñ ak ci njiitul sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke ak mboolem njabootu Abdou képp ak ci teewaatu sëriñ Moustapha Mbacke mii ci kilifteefu euh, sëriñ Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke nii yor kàddu kër gi mais mi ngi woo mboolem jullit yëpp. ak ànd ak mboolem njabootu Abdou Khadr gépp di woo mboolem bokk yëpp mboolem taalibe yëpp mboolem dëkkandoo yëpp mboolem soppe yëpp te Sëñ Abdou Khadr nag ay dëkkandoom mooy képp ku dëkk Sénégal kon dëkk na Sëñ Abdou Khadr bokk dafa mu woon ne Sénégal gépp ñu nekk ay dëkkandoom di woo képp ku askanoo ci maam ma xaram Mbàkke moo xam góor la ci boole wala jigéen la ci boole rawat nag ñu aju askanoo ci maam Balla Aysa Mbàkke ñëpp moo xam góor lañ ci boole walla jigéen ci boole <coughs> jiital ci nag képp ku njaboote ci Cheikh Ahmadou Khadim mu tàmbalee ci njabootu Cheikh Ahmadou Moustapha Mbacké ba ci njabootu Cheikh Ahmadou Moustapha Mbacké tàmbalee ci njabootu Sayyidatu Fatimatu Dia Mbacké ba ci soxna may Munata Mbacké ak mboolem waa Mbuusa bi gépp ñoom wuñ leen ci bés bi ndax ñoom moom bés bi ñoom ñoo koy màggal di wooy tam ni ko si suñu waxee léegi mboolem jamii turuq suufi yëpp amul kenn ku sepp seppe settee ñëpp lañ ci woo fu waaye ma nekk rek mboolem munasamat islamiya yëpp itam ñu ngi leen cee woo di woo mboolem seex sépp nga xam ne ñoo an topp li tàmbalee ci ka njëkk jébbalu ba ca ka mujj jébbalu bawuñ kenn di woo itam mboolem daayira yi nga xam ne bii ñoo nekk fii ci Tuubaa ak ñu nekk Ndakaaru ak ñu nekk Sénégal gépp ak ci mboolem ñu nekk ci euh, li réew mi lu mel ni Italie wala France wala Amérique wala Espagne ak fu mën a doon rek ci Europe wala Amérique ñu ngi leen ci woo ak Afrique di wooy tam mboolem jàngat alxuraan yi nekk suñu waxee léegi fuñu mën a nekk rawatina ak daayira madaris xuraan te sëñ Xaadi Jaxate jiite ko ak mboolem ñi mu ko àndal ñu ngi moo la ñàkkati xasaayit yëpp itam ñuy durus ak ñuy yëkkati ñëpp ñëpp ñëpp ñi nga xam ne bi itam ñu ngi daan daa préparé ay ñam di ko indi ñu ngi leen ci soñu baax di leen ko fàttali ku mel ni sëriñ Cheikh Bara Mbacké ak sëriñ Seydou Niang ak mboolem njabootu sëriñ Cheikh Niang Jaay bi gépp bokk yi nga xam ne bi ñu daa taxaw ci bés bi da ci am luñ ci daa warlu bokk yi nga xam ne bii ñoom lañu tuddee sëñ Abdou Khadir mooy turandoo yi moo xam daayira la wala loolu daayira itam ak képp koo xam ne ki sax amoon na yéene tudd sëñ Abdou Khadir ñu ngi lay woo ci boobu la di woo it sàkku képp koo xam ne kii euh, yaa ngi bokk ci ñi am ay jumtukaay yu toxal nit ñi muy transporteur yi ñu jàppandal nit ñi dikk gi ak dellu gi di ñaan tam ci ñëpp ñu taxaw ci yoon yi dakk der yi ñu jàppandal chauffeur si yoon yi ba képp kuy dikk ci dëkk bi ñu jàppandal la ba nga dikk jàmm dellu ci jàmm ñu ngi woo ñëpp bàyyi xel ñëpp képp ku fi dikk yàlla teew dafa si aajo zahir ak ci barke Sëriñ maa ngi yëkkat sama kàddu ci ndigalul Sëriñ Sidi moom Sëriñ Abdul Xaadir mi nga xam ne mooy jawriñu liggéey bi di ko yëkkati ci turu mboolem sëti Sëriñ Abdul Xaadir yi ak euh, ñeen ko baaxoo àndal ak turandooy Sëriñ Abdul nga xam ne moom lañ baaxoo àndal bi di woote bisub conférence bi nga xam ne moom la ñuy def muy bis bi xam ne moom la ñuy waajale màggalug Sëriñ Abdul Xaadir gi mu doon le quinze dëppoog äh, äh, alxames la quinze äh, octobre ñi ngi ñi ci ciy woo nag mboolem ñi nga xamante ni ñoom lañ ko daa àndal ñëpp di ko tàmbalee ci mboolem njabatug Serigne Touba gépp di tàmbalee Cheikh Cheikh mustapha ba Cheikh Mahamadul murtada ñëpp ñi ngi leen di woo di tàmbalee ci soxna Fadja ba ci waa kër soxna Maymuna ñëpp ñi ngi leen ci woo mboolem kun bokkal si Mor ant Sali ñëpp ñi ngi leen ci woo ak ñeen bokkal maam Balaye ak maam Maharam ñëpp bàyyiwuñ ci kenn ak mboolem seex Serigne Touba yëpp eh, ñu ngi ciy wooy ñun suñu mbokki mbosoobe bi ak ñi nga xamante ne ñoom lan daa àndal bis bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo di woo taalibe yëpp bàyyiwuñ ci kenn bis bi nag sëñ Mbàkke Abdourahmane mooy def waxtaan wi waxtaan wi nag eh, thème bi nga xam ne moom la sëñ bi tànn ne nan ko waxtaanee mooy li nga xam ne lan mooy taxawaayu sët ci sàmm naral maamam waaw tam lañuy la waxtaane kon nag euh, waxtaan yi fas na ñu ngi fas yéene bu neefar jotee mu tàmbali euh, ba ba bu mun jotee mu àgg incha allah. ñu ngi woote ci turu fédération bi nga xam ne moo lëkkale mboolem daayira yi aju ci kër Serigne Abdoul Khadir yi nekk fii ci Touba ak yi féete Ndakaaru te Serigne Mbaye seen nekk seen jëwriñ ñu ngi leen di soññ bu ci bis bii nga xam ne amuñu lu moom. mel ni war naa yomba soññee ndax daaw ba ren ñu ngi def ay ndaje di waxtaan di sottante ay xel ak xalaat te lépp benn bis bi ñu jublu rek moo doon sabab bi kon bu bis bi dikkee li des mooy jëf ji ñu daal di koy matale ni ko sëriñ bi santaane kon ñu ngi sàkku ci mbooleem daayira rey lii seeni warteef ci màgget gi ñu taxawee ko ba mu kawe njort lool su ko defee sëriñ sii di nee na mi ngi ñuy soññ bu baax ci ndab yi nga xam ne santoon santaane woon na ko ci diggante Touba ak Mbàkke féete bool yooyu mu santaane woon nee na mi ngi koy soññee fii ak dibeer ji ñu jublu ñu fexe ba lépp yemb bañ jébbal ko ko ñi feete ndakaaru it cin yi nga xam ne joxe woon na ndigal ngir ñu topp ko ñoom itam sëriñ bi ne mi ngi leen ci soññ lépp nee na ñu fexe balaa dibeer jii di jaw ñëw lépp na jàppandi su ko defee ñu jébbal ko sëriñ bi loolu sëriñ si dina ne mi koy fàttali ñëpp niki noonu itam ñu ngi fàttali mbale mi nga xam ne sëriñ bi joxe na ci ndigal ñu war koo def li tàmbale fii ci kër sëriñ Abdul Xaadir ba ca sanc yi nga xam ne fa la jabootam dëkke ba ca gere gi nga xam ne leen ci njabootam ña nga fa fépp ñi ngi sàkku mbooloo mi bu ajjuma ñu teel xëy si di ci woo mbooleem ñi nga xam ne ay mbooloo yu dajaloo di bale ci dëkk bi lañ sëriñ bi joxe na ñëpp ñu maase ñëw seetal ko balaa gan ñi ñëw fekk li fi war a lépp ñu seetal ko ñi nga xam ne sama borom dogal nañ taw feex leen ñu tërbiyee sëñ Abdou Khadir ci ndigal sëñ Jili Njaay ak sëriñ Tuubaa Mbakke Baxdaat ñu ngi soññ mboolem tërbiye yi kenn ku ci ne fa nga xam ne fa la sama borom féetale ci kër sëñ Abdou la nga daan def ci màggal gi fa ko daan jaaree nga jaaree fa ba mu àgg fa mu daan àgg yàlla na sama borom dugal dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin te li waay fas yàlla na ko sama borom nga am ko ci kàttanu Cheikh Abdou Khadir Mbacke bàkk suñu borom. daayira bi nga xamante ne mooy turandoo Cheikh Abdou Khadir te Serigne Cheikh Abdou Khadir Mbacke jiite ko mu Serigne Amdou Mbacke Darou Salaam euh, Serigne Sidi nag dafa wax ne lim ñu dénkoon at yi jàll yëpp moom la ñu dénk ba léegi. kon war nañ ci gën a góorlu gën cee soññ suñ bopp gën ci am fulla ndax wax na ne li jàll li jot jàll lépp rafet na loolu nag kon jikkoom rafet tax mu wax nu ko nag waaye ñun nañ jàpp ne li jàll li jàll lépp dara jagu ci woon ren ji lañ ko war a gën a jagal kon kenn ku ci nekk na nga laxa saayu góor góorlu te boo ci defoon benn nga def ci fukk. jërëjëf mbokk yi ñoo jot dégg kàddu yi bàyyi ko ci sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir mu jële ko ci ndigalul magam sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdoul Khadir mu bàyyi ko ci serigne touba cheikh sidiel muxtaar kàddu yi matale na ci kep ko xamne yaangi wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah bis bisa bisa ndax cheikh abdou khadir lol la don dund kon bàyyiwun kenn bàyyiwun fenn bàyyiwun ñenn képp koo xamante ne bii jàkkaarloo nga ak image bi wala nga deg kàddu yi serigne cheikh neena na moy lettre bi warona ñëw fi yow ne la sa bisum mbokum julit ma sa bisub serigne ba sa bisub trondo ba wala sa bisub soppe ba ak si na mooy bisub seex abdul Serigne Sidi nak neena mi ngi wax ci turu magam yoy di fatali mbollem ñi nga xamne ne ñoo daan jàpp ci bis bi kum ci mën doon rawati na ñi ñu tuddu seen i tur ak ñu tuddu seen tudut ku mel na Serigne fallu Galas Mané xamna taxaway bi mu amoon ci kër gi xam lim sekkon ak Cheikh Abdoul Khadir daan ko motale ba bisub tay Serigne bi neen ko ci soñi waye nak dañ ko tuddu waye ñëpp nak ñoo bokk jenn yene ak benn pass pass ci bisu Serigne Abdoul Khadir lu ci waay man lebalal Serigne Touba boko lebalé mo lay fay Serigne Touba mo waxoon ne Cheikh Abdoul Khadir bis bi mu gane aduna ci la tambalé ramm ba nim gëné aduna kon nag bis baa ngi noonu képp koo xamante ne bii yaakaar nga bu ëllëgee buñ la dekkalee ci bàmmeel Cheikh Abdou Khadir nga seen ko ñi ngi lay woo ci bis bi di ñaan ku fi ñëw daal bagaan goo fi àndaale yàlla na fees dell du danki nag ngir na fi nekk moo tax ku nekk war ma la jiili du wut xarum yar def ko ci biir kër foog ni da koy aar ci lenn jiili du taaji njaq ñu di ko séq du sarxe séq ngir fegu jiili tawhid ju sell sax ca ne cell ba jàll jàll mi ci jiili